parce que buñ ko buñ ko surveillé woon mën naa àgg ak. ñu ko fay. kër gi doxul ñoo yëngu aussi wax dañuy chercher la soxna su fekkee yaa ngi may dégg su fekkee yaa ngi may dégg bu sa sama la dana su fekkee yaa ngi may dégg bu sa sama la ko su fekkee yaa ngi may dégg bu sa sama la chercher naa conscience bi il est inconscient. chef chef chef chef. indil leen bi bi ñëwee dañoo fekk victime bi dafa am arrêt cardio-respiratoire cela veut dire que nooy yiwul bi baaturul aussi il est inconscient biñ ñëwé dañ ko réanimé biñ koy réanimé dañu def RCP dañu def comme c'est quatre lañ dama wo kenn ki bi à deux MCE e, cinq massages cardiaques externe def cinq insufflation manam méthode bouche à bouche suma ko siège vérifier méthode Joy respiration bi bi ma tatoné gisuma respiration cœur batroul, mais ma continuer je continue continuer faire 5 massages cardiaques, massage cardiaque Je continue def faire 5 fois Je ma ci cœur bi il respire mais il est inconscient Je suis inconscient mais il est inconscient ci laa ko pochons, position latérale de sécurité léegi dama ko war transporter pour yóbbu parce que l'inconscient, si je fais su ma ko fi bàyyiwee lu yàgg te surveiller wuñ ko inconscient bi conduire de la respiration te de la respiration bu arrêt de la respiration bu amé am arrêt du cœur après dañ ko transporter ni ok ici on a une victime qui a une plaie profonde au niveau de l'abdomen comme vous le voyez et la CAT c'est de le mettre en position demi-assise et et d'attendre l'arrivée de le de le protéger de, la chaleur d'éventuelle chaleur ou de quelque chose de, la poussière et tout et comme c'est comme ça qu'on va le transporter sur le brancard on va le transporter en position demi-assise on a improvisé un tétière pour que la victime ne se couche pas directement, pour éviter que la plaie ne s'ouvre carrément. Donc ici, on, va, on, l'a, on l'a couvert avec une couverture pour limiter les dégâts qu'il y aura avec la poussière, la chaleur, etc. C'est comme ça qu'on va la transporter euh, dans un endroit précaire en attendant l'arrivée des secours médicalisés. fi Il y am eu un accident ñaari auto ñoo dajé daal ni mbëkk kii bu bi après mu daal di bañ ñëwee dañ ko defal bañ ñëwee ba daa def test yi ñu daal di xam ne dafa gaañu dañ kaa couverture léegi bañ ko couverture pour ñu mën a xaar ambulance bi mën a yóbbu ko parce que victime bi mën naa bokk si ñi nga xamante dem parce que moom dee na ba pare kon donc loolu lañu amoon rek mën a wax. bi ñu am fii dafa am traumatisme traumatisme la am dans la colonne vertébrale moo tax dañ ko immobiliser de la tête vers les pieds parce que bu ñu ko immobiliser wul ñu ñëw di ko yëkkati di ko jang jangee colonne vertébrale bi si suuf. mën naa am problème te mën nañ ko paralyser bu ñu ko paralyser fibre extérieure bu paralyser fibre extérieure kenn du ko mën a faj moo tax dañ ko immobiliser daal ta vers les pieds a yëngatu du yëngatu def benn dañ ko immobiliser ba mu dëgër dañ koy takk waaw dañ ko immobiliser ba mu dëgër pour mu bañ a yëngatu daal ta vers les pieds bu ñu paree ñu doon dañ koy brancard daal ko évacuer moo tax warut ta yëngatu. léegi victime bi dafa inconscient après mi ngi respirer léegi bi ndiké dañu ko xool alentour ba xamul dara luko ko mën a gaañam déet ñu vérifier saignement bi sañewul ñu vérifier degré de conscience bi ñu gis ko dafa inconscient bé mais mi ngi noy léegi motax ñu défal ko position bi position latérale de sécurité mooy ñu koy wax am ñu wax position d'attente et de sécurité buñ paree dañ koy couvrir pour xaar euh, sapeur yi ñëw pour man ko évacuer léegi bi ñu koy defal position latérale de sécurité danoo mettre tête bi en hyper extension pour que bu fekkee ne si mi ngi wàcc wàcc bi day mën a génn normalement wala fekkee am na tiflit yi nekkoon si put bi day mën a génn normalement bu dul loolu rek bu fekkee ne defuñu ko noonu lii bi man mën naa des si ci put gi te boobaa da koy da koy kii pour mu day tax mu mu obstrué wu te bu obstrué wu mën na ko indi beneen problème bi problème de respiration te su boobaa day compliqué suñu suñu liggéey léegi li tax ñu couvrir ko nii c'est pour maintenir sa température parce que buñ ko bàyyee noonu bañ koo lii peut-être rayon de soleil yi tàppe ci moom naa augmenter température bi te su boobaa tamit day indi yeneen complication loolu tax ñu koy couvrir pour maintenir sa température. kii dafa am fracture ouverte fracture ouverte am au niveau du cuisse mu ñëwee defal naa ko arrêté naa segment bi ma pare après bi ma arrêté segment bi ma jël kii bi bànn ko ko ba keroog ba segment bi taxaw après ma immobiliser tànk bi. immobilisé na ko ba paré mais dama xaw retour ambulance pour mo meun ko évacuer mais elle est elle est conscient ma ngi wax ak mom lepp da la dalu ko soxna si no tuddu fo deuk fan si tiwawon keur cheikh ban cheikh xam nga sa numéro papa wala sa numéro yaay japp nga si wala sa numéro jëkkër am nga non non amagoo jëkkër sa numéro yaay japp nga ko mën nga mako jox ma woo leen. diplômé bon victime biñ ñu am ni victime dafa am euh, dafa am corps étranger c'est-à-dire dañ ko jam té nit buñ ko jamee paaka kenn amul droit dindu ko parce boko boo ko da fay génn automatiquement donc dang kay bayé non soko bayé non dang kay défal bandage boo koy band corps étranger bi da nga koy bàyyi si biir donc ñun secouriste amuñu droit génne paaka wala ñu génne benn corps étranger bo xamanténi nek na ci biir victime soit ñu jam ko wala mu am lu dugg ci biir yaram wala leneen lepp lo xamantene ko étranger la amuñu droit dindi ko dañ koy amblé non lañ koy amblé yóbbu ko ba wa keur docteur ñu saytu ko donc victime baa ngi nii installé nañ ko ci blancard bi donc sapeur lañuy xaar pour évacuer merci beaucoup zone de sur deux bras. Station pour lever, lever. Avancez. C'est à vous de S'il vous a 在我们这边。 Debout, debout, Joignez les pieds. Deux pas en arrière. Deux pas. Tout côté à droite. Avancez, très bien, planter. Rabattez. Attention pour, poser. Enlevez, envoyez et poser. Merci beaucoup. Jangan lupa untuk Merci beaucoup. Bonjour, je me présente. Je m'appelle nomme Faye, secouriste diplômé. Bon, nous intervenir dañoo dañoo alerté dañoo alerté euh, accident accident bi fini mi ngi am place publique près au champ léegi bi ñu alerté accident bi nature bi moy ñaari auto ñoo dajé dañoo déraillé Légui biñ ñu amna amna ay victimes victimes ils sont au nombre de 8. Légui biñ ñu au nombre de 8 ñew nañ sur le terrain on a on a balisé fekk nañ euh, alerté nañ tamit sapeur pompier ñew nañ ñu alerté police Légui victimes biñ bi ñu examiné am victimes yo xamanténi ni dañoo am ay cas grave donc dañ leena wara war a dañ leen a évacuer sur le champ donc cas grave c'est-à-dire victime bi dafa amé fini euh, saignement donc fii saignement bi c'est non grattable donc dañ ko évacuer sinon après des causes causer mort donc deret bu bari buy génn boo xamante ni fini, nii mënoo koo euh, donc da nga évacuer sur le sang Sur paree si loolu am na une victime deuxième urgence victime bi mooy dafa amee plaie au niveau de la cage thoracique donc kooku tamit évacuer en extrême urgence pour maanaam sauver dund gi mu mën a dundaat victime bi tamit dafa dafa arrêt cardio-respiratoire donc bi ñu ñëwee commencé nañ def les les premiers secours xool nañ victime examiner nañ ko defal nañ ko massage sur place defal ko lépp li nga xamante ne moom la war RCP sur place donc victime bob kenn waru ko déplacé bi ñu paree tamit victime yoo xamante ne ñu ngi dañ sur place donc yooyee victime yi nga xamante ni mën na xaar victime yo xamante moy ay dam damm victime inconscient et qui respire victime yo yëpp mën na xaar mën nañ leena évacuer mais ñi ma njëkk a wax euh, ñi ma njëkk a wax ñooñu la ñu war a évacuer en extrême urgence sinon bu ñu leen bàyyee sur sur sur le terrain mën na causer benn mort bi donc xam naa damay jox suñu naataango mu wax question waaw victime yi am na ay décès parce que victime bi ñu am dafa dafa décédé décédé na coup bi ak koor bi ñoo ñoo tàqali ko dafa décédé donc kooku dañ koy àmbale évacuer ko Oui. D'accord. D'abord, pour parler un peu du, du, du thème, Li dañ doon def simulation bu nga xamante ne c'est une situation à multiples victimes maanaam accident bu nga xamante ne dafa impliqué ñu ñu ñu bëri n'est-ce pas donc foofu da lay da lay leer ne benn nit rek mënul ñëw jàppale nit yooyu yëpp nekk si si jafe-jafe day laaj ndimbal yu yu bëri donc ñoom dañu ñëw en tant que des des secouristes pas en tant que des secours organisés comme les comme les sapeurs-pompiers parce que si su fekkante domaine on va venir avec nos matériels n'est-ce pas mais nous, c'était juste une sorte d'évaluation pour voir nous, par rapport à ce que nous fait. ñoom Nous, avons une situation et nan la fait nan situation ñuy mën a saafare euh, pour voir comment ils vont faire face à ce genre de genre de situation donc c'était une sorte d'évaluation donc eux ce sont des secouristes Tombent dans une situation nous nan fait une situation donc victime yi bëri na mais ku si nekk ak lu dal léegi nag yow dang nga koy defal bilan déjà dang nga koy defal bilan xol lan moko dal pour nga xam ban conduite à tenir nga kay defal so déggee conduite à tenir manam yan geste de secours d'urgence nga kay defaral n'est-ce pas parce que secouriste dafa am ñetti objectif secouriste dafa am ñetti objectif yu nga xamantene ne daf ko wara atteindre ben muy maintenir la vie de la victime manam soko ko nit ki ñakagul bakanam da nga fexé ba nit ki warul ñak ñak bakanam loolu mooy premier objectif Deuxième objectif bi éviter l'aggravation de l'état de la de la victime yo, en tant que surprise nga ñew fekk ne dafa amé ben ben plainte da ngay fexé ba ci plainte bobu mu so soo fexewul ba mu génn si si jafé jafé bobu waro aggraver ka am ñetteelu objectif bi moy nga fexé ba faciliter son son rétablissement te faciliter son rétablissement bobu lan mo koy lan lan lan lan moy tax nga mën ko am C'est parce que geste de secours d'urgence, yu ngi koy defal si qui ça c'est donc ce que nous avons bu c'était en fait pas nous les sapeurs-pompiers mais eux secouristes nous sommes tombés situation cette nan nous def les secours mais voilà, secours yi nous avons ñoom un geste de secours d'urgence la par rapport aux aux victimes et ça c'est important parce que ce n'est pas tout le temps que les sapeurs-pompiers sont tombés sur accident les sapeurs-pompiers ils sont là à la caserne en en attente di xaar ñu est-ce que vous voyez donc eux ils sont tombés euh, ils sont témoins de l'accident n'est-ce pas au niveau de la gare routière, en face de la gare routière, ils ont alerté, n'est-ce pas Peut-être euh, les secours, les, pompiers, ils sont engagés dans une autre intervention. Ils ne sont pas encore arrivés. Ils ont fait gestes de secours. Et on les a évalués, on les a testés par rapport à ça. Et vraiment, on a vu que, on a vu que eux, vraiment, la formation s'est bien passée. Parce que si l'Union Tagadiep, non, ils ont vraiment fait les gestes qu'il fallait. Parce que non seulement ils savent ban atteint urgent ils ont fait les gestes qu'il fallait et ils les ont évacués Nous avons ils ont fait les gestes qu'il fallait ils les ont mis dans des positions d'attente et ensuite ils les ont évacués également. Euh, Mota Important importance le secourisme ça doit pas seulement se limiter aux agents de la Croix-Rouge aux ASP Beaucoup parce que tay, de nga tu es incapable dans cette situation nga gérer jafé jafé gérer les Tay, nit es non, su gérer les yow Tu di nga tok en âme ne suma gérer ma geste yu donc geste yi incapable c'est très important, c'est très important parce que tay, muy sa gérer les muy école bu ngay de au marché à la maison fépp fu mu nekk cette nga situation si on t'a formé on t'a entraîné on t'a instruit par rapport aux gestes de secours d'urgence yow di nga ban conduite à tenir appliquer ci victime Ce qu'on ko fait du aaju sax sapeur pompier sur place